ku ma yëpp tey nga ma yëpp non non non xam nga ni waay sa waay déglu ma sant yàlla sant yàlla damay sant yàlla bay dakk man lu ma dal damay sant yàlla man xoola su nee ma damaa dof sax damay naan d'accord xam li ma xam xam li ma xam ndax xam nga tax su booy bi taxawee ci média yi naan liiru dafa dof dafa am problème bopp et puis la mooy jaxase géej waay moo tax ma yàlla dafa am ñu nekk ci ginnaawam te xoolal mun naa la wax benn affaire man mu ni maa laa fii géej waay fii Guédiawaye monument laa fii ñëpp ma jox sama cër mbër yëpp ma jox sama cër ku ci nekk am na fu ma jaar ak yow Balla Gaye 2 suma rakk la grand champion xañ na dafa am ñoo xam ne day bitaa gas seen Balla Gaye 2 neexu moo tax ñuy dem di conseil booy bi di ko wax loo te booy bi dafay yàlla saytaane la booy bi ñëw na Guédiawaye nee na dafa taxaw nee Balla Gaye moom la àndal keneen ak ay ñoom saakees ay ñoom day soob c'est pas vrai c'est pas vrai gis nga billaahi wa taalaay nee naa li ma xam dafa bari nan ma bàyyi gaynde guy nelaw kenn du ko yee gaynde guy nelaw kenn du ko yee su ma yee du baax bu du ma yee nan ma bàyyi ma nelaw